dañu yoxu yoxu go xamanteni ni lu dul doomu aadama dana ko dégg ci bu len ma ci dugal bu len ma duggal ci pax mi te ñi la ŋàbb bala ñoo taggo yow duñ la dugal ci pax mi ndax mom dugal la ci pax mi rek a leen arrangé pexe mi ñepp d'accord moy dugal la ci pax mi boo ko defé nak yow yoxu gi nga yox naan bu len ma ci duggal nit da ko du dégg motax nit mom du ko dégg waye lu dul doomu aadama rek dañu ko dégg te boba bammel mo lay wax bopam den dañ la wax ni la këru wéetaay la keur la go xamni kenn du la ci wettali kenn kër gu lëndëm la benn bunt la am te boo duggee ñu sakk ko benn bunt képp la mooy bi ngay jaare te booy dugg ñu koy sakk kon da nga xam ni këru kër këru lëndëm la këru tàngoor la itam ndax amul amul ventilateur amul dara wantay néewu fa dara nekku kër la itam koo xamante ni ni ah, bagage yi bare nga ci ay saxa nga ca yoo xamante ni ni yàpp nit képp la ñuy ay jiit nga ci yoo xamante dañuy mëq suuf ba ñuul kuk ñu nga ay jaana nga fa yoo xamante ni la ñu am ci ay bopp dana ëpp téeméer yow jaan di nga xam benn bopp la yor yooyu ña fa nekk la ñuy am ci ay bopp ëpp na téeméer ay malaaka nga fa yoo xamante ni nii malaaka yi seen bopp dañ leen ragal ndax seen melokaat yooyu yëpp dafay dem te du caagi ni ab rek nga bëgg a sukkandiku ci ndu ma leen gis am na fa malaaka mu ñu wax rawman dana julli dana dóor kuy wor di nat asaka dem makka ba pare di wax batu sedi yi meki ko di julli bo demé ci simple jawahir seigne touba ngi ci nettali mais am na koo bu ko ba ko raw man dore cër ya da tagaliko bim ko da tagaliko koko ni ko li tax nga may do man ma ngi doon julli di wor di nat asaka lu bax lu ne mo koy def mo ni ko nu may def ba duma la dor ndax da nga dan saw saw mi du fer nga bayiko ci bir tuba ji lolo mo tax duma la sobe sax surtout nit ñi nga xam ne fi mu doon amatuñ temps tuuti la taxaw ci sawukaay daal taxañ dugal ci biir muy seen ñu seen yoon bu dee jigéen ñi tuuti ñu bari am na ñoo xam ne sax far moom fa tabarakallah yooyu mu taxeeb du may bàmmeel rek lay indi malaaka moom yii ci biir kooka looloo tax mu dóor boo demee ci seen kul jawahir sëñ yooyu yëpp dafa bëgg rek yu sew sewaan yooyu yi ngay xeeb nga farlu ci di ko settantal benn par benn ndax ay jafe-jafe rek lay yéen yooyu mat naa bàyyi xel bu baax a baax nga gis ni àdduna ci nii mu demee nga xam ne daanaka ci yées la bokk mooy wax loo xamul ak jëw ne tudd nit fu nekkut te woo ko rafet ak rambaaji ak fen ak wor ak lekk yu fi jàmm ak jaxase ay nit yooyu day xeet yoo xamante ni ak añaan benn bu ci nekk day yóbbu nit sawar nit yàlla rolam mooy jéem a faj jàngoro yooyu te buñ doon xool jàngoro yooyu moo daj këpp àdduna fi doon bu dee hôpital yi liñ mën a faj mooy si la bo demé dañ naan fee dañuy faje bëñ dentiste yaa nga fele ñi faj nopp nga fele ñi faj bop ñi nit nim bare waye nim bare ay organe yu nekk biir non la bare ay spécialiste lenn lu ca gar ñom man nañ man nañ ca taxaw ba lola ñu ne waye bu fekkente ni jàngoro yii nak la mom nit yalla mo koy faj jàngoro yee mom du la yobbu sawar nopp buy metteeg tank buy metteeg bët yu mën la yobbu sawar waye man na naqaril sa dund waye fen moom bu dokkut boroom sël na mbeddum sawara te wëññikuwut jëw bu dokkut boroom sol na mbeddum sawara bu wëññikuwut lekk yi fi jàmbur ndax yooyu ay àq la yoo xamante ni ëllëg loolu moo nu fa yàggal ca jataay te yooyu la nit ñi gën a woyefal loolu la nit ñi jàpp ne du dara jëw fi doon ni lu yomb la ndax léeg nga toog ci place yow sax doo jëw waaye dañuy jëw séeréer la nga dëggal waaw waaye day wax loo xam ne xamu ci dara bu waxee pare nga ne ko ah moom kay dugal na la ci biir wala mu wax nga yëngal sa bopp mu kon ne di wax rek yéen ko ànd te benn jëw moo gën a foor fanweeri njaaloo fanweeri yoon yoo njaaloo benn jëw ko gën a foor fanweeri yoon yoo sëy ak jigéen joo tëkku mbaa nga sëy ci ab góor gu la tëkku benn jaaw benn jëwoo ko ëpp doole waaye da nga gis ni mu ni mu yombe wax lu du dëgg sos commentaire loo xam ne sa yoon nekku ci yooyu yëpp da nga gis ni ay jafe-jafe la yoo xamante ni bu ëllëgee te tribunal ba loolu la sun borom di lijjanti yàlla tooñ gi ko tooñ man naam du am problème ndax xafuurun rahim la sun borom ab kon la ku bari yërmande la am na ci bakkar yo xamni man nga teud di nelaw sax yalla jéggal la waye li nga xamni da dox sun diggante loolu yalla da cey maanu yoy yi lañu lijeenti ci penc motax touba daan ni bu len lak sen dag bu len ko wala yàlla sëñ Masamba Diop Sam la ko don wax ni ko bu len lakk sen dag bu len ko wala yàlla sëñ Masamba Diop ni woon luy lakk sa dag mu ni ko jëw ab yéefar ab yéefar nga di ko jëw mais mooy lakk sa dàgg ndax dañuy jël lu bonam jox la yaa ngi doon dajal lu baax léegi dañuy jël lu bon lam am dugal ko ci li nga am mu ni jëw wala yam sa dàgg mu ni jëw ab jullit saa yooyu jëwee ab jullit jël nañ sa lu baax jox ko maam li nga doon korkoree tas néew ci lu baax di ko dajale ca la ñuy tibb jox ko sëñ ba sàmm bu sàmm ne mbaa du jëw kon noonu noonu la tare sëñ Tuubaa ni ko musal jàkkarloo ba musee jàkkarloo ba xam jëw jëw tar na boo mosee jàkkaarloo ki nga doon waxal ni ko man mii man la nangam ak nangam la cay juddoo moo lay xamal ne la jëw baaxul ndax fitna da ci juddoo joo xam ne boo wëttul bañam gaa wax moo moo moo koy gën waaye da gis ni nit ñi dugg nañ ci mbedd moo xamante ne nii bu nu wëññu ko wut mën nañoo dem ëllëg ak loxoy kese maanaam loxo dana dem gémmiñ te du yóbbaale tib nit ñi nag seytaane day mbër moo xamante ni ni daam doole yàlla ko kàttanal te mi yàq-yàq gu efficace goo xamante ni nit du ko gaaw a xam waaye li wérte woon mooy bari na ñu tëdd ci biir bàmmeel ñoo xam ne buñ jël siwaatoon nañ dunde woon ba faatu duñ ko dundewaat ndax dañuy dem fekk ne lañ leen doon wax lépp ay caaxaan la dara du ci dëgg te del siwaat mun tam loolee nag ngir bañ mu dal moo tax ñu war a tënk sunu bopp ci yoon win nu xàllaloon mooy li yàlla yónni woon muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko neel jullit ñi nañ dunde nii loolu ku ko fi bàyyiwut bo ëllëgee boo demee da nga am jàmm waaye képp ku ko fi bàyyi te yaakaar jàmm nax nga sa bopp moo tax Sëriñ wax ni tallahi laysa yanfau sax xada inda li ramsihi xayru huda naa ci yàlla tallahi la wax ci yàlla du jariñ nit ki mukk buñ ko tegee ci kuusu bàmmeel lu dul ak jub du ko fa jariñ jub rek te jub mooy taxaw ci njàngalem yonente bi sallallahu mooy dundu lislaam loolu dong moo di jub waaye da gis ni seytaane day mbër moo xamante ne nii bari na lu mu dugal ci bopp nit ñi bañ gëm ko te dara du ca dëgg benn mooy dañ naan Sëñ Tuubaa nee na sunu àjjana aju ko ci sunu jaamu yàlla loolu lañ ñu wax ñu bare bari ci ñun loolu lañ gëm fi mu doon nii boo gisee ñu bare bari di doxe maa tey mooy lo loolu lañ gëm gëm nañ ni àjjana moom mën nañ caa dem te duñ def dara ndax Sëñ Tuubaa mi ñuy tuddoo Sëñ Tuubaa mi ñuy tuddoo Sëñ Tuubaa nag dañuy rajaa u jannatin bila taati bi sunnatil maaxi xururun yaati Sëñ Tuubaa nee na képp ku yaakaar àjjana te nangoo jaamu yàlla Sëñ Tuubaa nee na waru nga waru nga mooy doo doo ci dugg ndax nag mbind mi la jàpp wala nettali yi la jàpp man de mbind mi la jàpp ba keroog mooy gis lu ko dindi waaye nit ñi moom mbind mi nettali yi la jàpp mooy genn góor gu baax nee na benn bis ci njaareem yoo xam ne teguwut fenn li wérte woon mooy sëñ bi bind sëñ bi waxaat na ni faneen foo xam ne ni safiya mooy dof na dañu képp ku yaakaar àjjana te nangu koo jaamu yàlla sëñ ab dof nga lu tax mooy àjjana benn buur la te ku ko jaamut doo ci dugg àjjana yàllaa doo ci dugg loolu la bi wax te moom la bind waaye da nga gis ñoo xamante ni liñ leen gëmloo mooy seen àjjana moom sëñ bi aju ko ci seenu jaamu yàlla te sëñ bi nu am ak moom ngir jaamu yàlla yow nga lànk bañ a jaamu yàlla la ci sa bopp beneen bi ci des ñu ni sëñ bi nee na suñu teraanga aju ko ci suñu coono koo fi gis mu mu mu tedd te sonn wala bopp keneen ku